barki démb benn manifestation boo xam ne la coalition Yewwi daf ko def avant coalition boo avant avant euh, manifestation bi sax gis nañ lu mel noonu ay kàddu yoo xam ne rafetul ni koy jëmale si président de la république di ko jëmale si le ministre notre leader monsieur le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome qui est dans le passé un fervent magistrat un magistrat digne un magistrat compétent, honnête et loyal, qui a toujours servi les couleurs de la nation, qui a toujours été au service de la nation. ni koy tuumaal di ko saaga di ko di ko di ko di ko di ko jaxaseeg askan bi te loolu defe naa ne képp ko koy wax danga nekk en mauvaise fois parce que le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome ñu koy saaga ñëpp kenn mosul dégg mu génn ci télé wala mu dox ci mbedd di la tontu kon kooku il a une sincérité d'un homme d'État boo xam ne il sait gardé les secrets il sait comprendre la population avec leurs emportements parce que tey bu fekkoon ne day tiisanteeg ñooñu di leen tontu mën nañ ko coller beneen image mais c'est un homme très responsable ki a compris quest que c'est qu'un homme d'État ñu koy saaga ak a tuumaal wala di ko di xase population bi ñooñu seen intérêt la ñuy protéger mais la population au âmes fertile ñi nga xam ne borom bopp laay waxal xam na li nga xam ne ministre bi mu ngi koy def depuis bi mu fi toogee léegi ñooñu duñ mës a gëm kàddu yooyu ñun nag ci côté boobu lan rangé wu parce que nous sommes des jeunes nous sommes des jeunes conscients de l'avenir du Sénégal tey ñi nga xam ne waa pas waa yeewi mun naa ko tuddee noonu presque ñoom ñëpp la amul kenn koo xam ne gën na bëgg Sénégal amul kenn koo xam ne ne mu ngi porter couleur Sénégal ñun fun ko porté wul ñu ngi koy porté dans toutes les instances pour permettre suñu dëkk nekk si jàmm pour permettre suñu dëkk adopter le plan de l'émergence du Sénégal bi nga xam ne Macky sàll adopté na ko pour jusqu'en 2035 chaque jour ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax mais bu buñ koy def dañ koy def de manière très responsable duñ fi nekk di saaga duñ fi nekk di xase duñ fi nekk du wax lu du dëgg duñ wax lenn jëmale ko ci coalition Yewwi ci lu bon ce que nous avons faire lu nu président jàngal wala ministre de ministre de l'intérieur jàngal mooy il faut combattre avec les idées la force de l'argument et la force de toute chose du si doole du si du si du si doole physique du si doole làmmañ bu ñaaw mais ay idées convaincantes yoo xam ne tey intellectuel bi bu la dégloo dina na xam ne kii en toute honnêteté c'est luy l'homme qu'il faut et c'est ça qui est arrivé au ministre de l'intérieur c'est un homme multidimensionnel kii depuis 2020 bi mu fi nekkee ba léegi les ré les réalisations sont là kenn mënu ko nëbb le maillage sécuritaire li gars yi doon waxtaan yële naan insécurité am mais le maillage sécuritaire au niveau national mais devenu une réalité entrez dans la banlieue vous regardez qu'il y a des commissariats ont été inaugurés par le ministre de l'intérieur je peux mais c'est pour renforcer la sécurité des population et maintenir la stabilité du pays kon kooku dama jàpp ne képp koo xam ne mu ngi wax si moom lu ñaaw da nga nekk mauvaise foi te loolu nag dan koy wax tey mu leer le ministre de l'intérieur citoyen sénégalais la am na ñoo xam ne référence la si moom référence la si ñooñu muy ñun ñi nga xam ne c'est le club dootul nangu on va plus accepter que des détracteurs sans vergogne des encagoulés politiques assoiffés de pouvoir venir salir le nom du ministre de l'intérieur dans les toiles là on n'acceptera plus la il faut qu'on adopte je vous dis chers chers chers étudiants la loi du talion ay pour ay dent pour dent parce que ñoom loolu lañ bëgg nu ce que nous savons faire c'est de parler avec les Sénégalais poliment du nu saaga mais képp koo xam ne tamit déggul jat boobu comme ni ko am na journal bu ma seetaan bërki démb euh, mu ne mbaam bu déggul xaw ma jatu lawbe da nga koy lawbe ñoom mbaam lan il faut nit ñi dégg suñu jat suñu jat nag mooy ñoom si li ñuy woo dootuñ leen bàyyi benn yoon nii ñëw di dal si institution de la république di dal si des hommes politiques yoo xam ne ils sont ils sont ils sont sincères son sont travailleurs ni leen di yàqal wala di wax si ñoom lu ñaaw loolu on va plus l'accepter monsieur le ministre ñëpp xam nañ ko tey du moom moo dem Sweet Beauty Sweet Beauty du ministre moo fa dem Ousmane Sonko moo demee Sweet Beauty du ministre de l'intérieur moo tiire ce n'est pas du moo tiire rey nit ban koy jiim rey nit donc kooku defe naa ne fépp fu dox tey Sénégal nit ñi dañ koy jox ñaari loxo parce que c'est un homme très responsable du dugg benn këru diine ñu koy bu nu xatal wala di ko jéem a génne fépp fu mu dugg gongo lay nekk parce que nit ku baax la qui a toujours participer à la bonne gestion ou au service de de de de, de la nation donc loolu nag kenn du ñu ko yàqal en tant que jeune ce que nous devons faire c'est de conscientiser c'est de sensibiliser la masse consciente que ñii nga xam ne benn groupuscule de politique yoo xam ne seen intérêt kese moo leen tax a jóg Ousmane Sonko Barthélemy Diaz ñuy dugal ay euh, seen saagakat boobu kooku nga xam ne sama tànk bii sax nawluwu ko muy taxaw di di waxal ministre bi loo xam ne moom sax maîtriser wu ko ça c'est ignoble te en tant que jeune ñun loolu duñ ko accepter nous sommes l'avenir du pays et nous n'allons pas accepter que des encagoulés politiques animés par leur propre intérêt crypto-personnel en venant s'installer le désordre, la délinquance dans le pays. Ça, nous n'allons pas, nous n'allons pas l'accepter. Nous disons niet à cela et que cela s'arrête dès maintenant. Sinon, la réponse sera très parce que nous ne laisserons pas le terrain animé par des hommes de mauvaise foi ni jël terrain bi di ko occuper ak seen kàcc-kàcc ak seen wax ju bon là on va pas on va plus l'accepter donc comme ni ma leen ko waxee monsieur le ministre de l'intérieur gis nañ ko fi dem nañ ba les événements du 3 mars ni brûlé këram génnul toppul nit si dara génnul wax si kon kooku ni ma leen koy waxee c'est un vrai homme d'État boo xam ne la Sénégal à la chance de l'avoir le président de la République a bien choisi son ministre de l'Intérieur. Parce que depuis qu'il est au gouvernement, il n'a pas cessé de remplir ses engagements auprès de la République, auprès des populations sénégalaises. C'est un homme qui remplit bonnement sa tasse de ministre de l'Intérieur. Donc il mérite beaucoup de respect, il mérite beaucoup de considération, il mérite beaucoup de soutien. Il est jeune, il est compétent. Sénégalais nak li muy bañ surtout les opposants pour ñu éliminer un homme compétent xam nga lan la ñuy wax dañ koy jaxasee population bi naan dafay complot kii dafay dafay dafay dafay dafay dafay def lii te alors que le ministre de l'intérieur c'est la c'est c'est le bras droit de l'armée je ne le dis pas en c'est-à-dire au sens péjoratif quand je dis le bras droit de l'armée il faut considérer l'armée comme la république comme le peuple mais un ministre de l'intérieur qui est fragile koo xam ne day bàyyi loo xam ne du yoon wala baaxul si réew mi baaxul si loi yi mu koy bàyyi mais kooku dafa nara a sànq avenir réew mi il faut protéger les sénégalais il faut qu'ils respectent les loi képp koo xam ne il n'a pas respecté les lois il a dérogé les lois se prescrire au lois qu'on s'est prescrites ou bien lois qu'on s'est prescrites et liberté Jean-Jacques Rousseau loolu la wax képp koo xam ne respecté na sart yi nga xam ne teg nañ ko muy ci réew mi muy ci gouvernement muy ci bépp structure yow yaa ngi ci jàmm mais boo ko respecté wul mais yoon dal si kaw réglement intérieur yi dal sa kaw pourquoi ñoom opposition bi bi biñ demee def seeni liste ñoom ñëpp dans la sur la page Ousmane Sonko moom il a reconnu qu'ils ont fait des erreurs euh, Déthié Fall ci boppam il a reconnu Dame il a reconnu son ont fait des erreurs mais pourquoi bi conseil constitutionnel décidé ki nga xam ne mooy au-dessus de tout même même le président Macky Sall conseil constitutionnel ñoom ñooy seen ñoom ñoom ñooy seen ñoom ñooy seen loi mais la conseil constitutionnel mais bu tranché en toute sincérité mais loolu jarul woon nit ñi si ay jarul woo nit ñi naan wàcc leen parce que yow yaa tëju sa bureau nga waroon a liggéey ñi nga waroon a liggéeyal nga trahir leen dem toog sa bureau ñetti nit ñëw def say kàcc juum ba pare ne loolu du fi amee là on va plus l'accepter et nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise consciente qui n'est pas aveuglée parce que projet malsains yi nga xam ne ñoom Sonko Barthélémy Dias que son des délinquants ñooñu projet boobu ñu duñ ci wuyu parce que nous avons la responsabilité de tenir le pays en toute sécurité nan mel ni yeneen coalition il y a d'autres coalitions plus responsables plus rigoureuses que une coalition yoo xam ne ñu ngi fi kenn déggu leen ni saaga kenn déggu leen ni def dara te pourtant ils ont subi ils ont subi la même sort c'est-à-dire dañoo respecter les lois qui régissent notre constitution qu'ils ont respecté la démocratie qu'ils ont respecté la conscience des Sénégalais qui leur suivent donc defe naa ne Ousmane Sonko Barthélemy Diaz danoo war a yem nit ñi xam nan lan mooy seen problème seen intérêt crypto personnel yi ñu bëgg a jël dugal ko ci biir réew mi pour taal Sénégal pour jaxasi sénégalais yi loolu on va plus l'accepter et je lance un appel à toute la jeunesse particulièrement les étudiants qui soutiennent le ministre de l'Intérieur on ne va plus accepter que ces encagoulés politiques viennent nous dire du n'importe quoi sur le dos du ministre le ministre tout tout récemment à la veille de la Korité même l'année dernière la la quarité les événements pédagogiques les événements sociaux les événements culturels mais fépp lay dugal loxoom di jàppale doomu aadama kenn mësul dégg mu taxaw devant les caméras naan maa jàppale kii maa defal lii des jeunes maa defal lii loolu il ne le mais kooku. il mérite beaucoup de respect pour les citoyens sénégalais parce que mu ngi jàppale nit xoolu ci dan ma dama ci dan ñooñu danoo war a ñëw redevable ma mais daf koy xool en tant que père de famille en tant que grand frère en tant que citoyen sénégalais en tant que homme d'état li mu war a taxawaayoo askanam te loolu il est en train de remplir sa tâche dans ça